Vito Cocktail, une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille Free yi yëpp ñu Senegal ko Sénégal si anam yo sell naturel buy bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit yi leen sawarloo jus bi sàppi oh. oh dina yok sen katan bolé si vitamine rek la ñi bëgg so naturel nag vito soo pour fête bu mënti doon te baax lool si y'a gune ak mag lepp nak nekk si emballage yu civilisé te wóor ak jus vito da am choix te ñu ko ci Sénégal si anam naturel te sel. disponible partout au Sénégal vito fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 vito jus le jus fait maison saga nene dade dinyo diwaga anda kikens koko idaya, nyako gife nee nañ dafa dox ñànku ji ñu nekk mhm. ak àdduna bi nu mu jaxasooyee mhm. man ñuy sàcc xale laa xam fu ñu koy fu ñu koy lekk ah! ay mangeur de bébé nekkul ñoo xam day lekk ay xale. de plus dafa mel ni dañuy gën a agressif. Mhm. sàcc xale yi jóge ñu ci loolu sàcc mu moto bi ah léegi kenn nekkatul si sécurité bu bien. surtout moto yi xam nga dama am doom joo xamante ni sama jarabaat la day dawal moto. Mhm. ba ci démb moo njaay sonal nañ ko si sonal boo xamante ni. Mhm. te moom li xëy wàcc ñibbi. mais léegi ñu bon ñi ñoo tax mënatoo xàmmee ñu baax ñi. ndax moom amaana. Ah, bu nekkoon jafe-jafe yi am si agression moto yi. Mhm. nu si di wax si jàmm noonu lay doxale waaw yaakaaroon ni policiers yi. Mm. coono gi ñuy daj ci moto yi di leen jàpp. Mm. ak coono yi daj ci tali bi. waaw bu ñu jëlaatoon ñu mel noonu. waaw ñu ngi ci farloo nag. waaw te am ci am ci yitte. Mm. ñu dugal leen ci guddi yi ñu ñu ñu surveiller ak koñ mu am sécurité ndax réew mu amul sécurité ça devient de plus en plus dangereux. lu nga war wax du ko mooy seen très bien loolu nga wax te seen der. waaw deru policier yi yàq nañ ko. waaw parce que boo nee policier sax léegi day mel sax nawloo wuñ leen. wallaay te pourtant ñu baax lañu. te mën na ñuy def. dukk ma wax la loo xamul woon booy tëdd sa néeg bee si jàmm may tëdd sama néeg bee si jàmm di yeewu si jàmm ginnaaw yàlla ñoom la. policier moo tax ñoom dama ne woon ñoom si réew mi waroon nanoo bokk suñu ëpp luñ leen di fay. dañ leen di fay ko war a yokku. donc ko war a yokk te lii nag lii lii di.

délai. bu ñu koy olof lu wax français daa compliqué ci ñenn ñi. na tek ci yoon bu baax. di leen dundal yokk seen salaire. lii moo gën yomb lu nga njëkk a wax. waaw lan moo tax nga bëgg lu jafe. yëg ci sa lépp man mën nga ko bëgg basé wu. waaw demal ci plainte bi bu ne plainte bi day mel ni ma ngay plainte. déedéet dama la moo yow tax bu may lay woo si lu yomb yow fa nga compliqué ko. yoo xam ne man nga tëdd jël. man man li nga may li may agressé ah ci ay paroles. Mm. moo yóbbu woon dil dig da ngay Eh, man nag yàlla daal dafa waaleykum salaam. nañ def ñu ngi fi kay. daal daal. Eh, dukku. nañ def ci loo ne. maa leen jàmm sant nañ bu baax sant baax kay. ñànku bisimilah. Eh, maa yéen a ngi ci jàmm sant ah, ma dul nuyu. ah Dukku yow ni nga ubbeekoo ni sama doom ñu nan lay toogee. waaye ku waay ko toog boobu ngay ngi ci jàmm. ñu ngi sant a baax macha allah alhamdulilah. alhamdulilah. noo leen def ak tàngaay bi. ñu sant yàlla bu baax bu baax a baax alhamdulilah. jàmm rek. ba jàmm la. parce que seen liggéey moom fi mu yemoon leen ba tey. waaw daal la nga def. maa ngi sant alhamdulilah. ana soxna sa. mi ngi si jàmm mi ngi jàmm waaw damaa ñëwoon nag ginnaaw ay jàmm. ndax euh, nit amul dul dëkkandoo. Mm-hmm. tey yàlla tere bu ma yuuxu woon sama kër gi muy jàmm muy ay yéen a njëkk a wallu balaas may mbokk ñi. yii nit boo leen woo wuyu tey ne woon wëleet yuuxu balaa seen mbokk ñoo ñun ñooy jiitu. Mm-hmm. kon gannaaw ay jàmm. dëgg te ñun daanaka ñoo bokk ndey bokk baay yàlla boole nañu ba noppi. Mm-hmm. njànku lépp lu mu jàppoon bàyyi na ko ndax yéen. alhamdulilahi rabbil alamin sama jikko la yor xam nga mer moom noonu borom la. Mm-hmm. soo meree di nga wax loo warta wax. mbala nga def ko. moo boo giifeere di nga xamné ne nga waxone wala li nga defone nekul yoon ndax ñom ñaar wax deug yalla duñu duñu ñaar kenn lañu lolou motax mané xaramu ñu wax leen ñëw nañu leen bi nak xamné plainte bi nag jërëjëf jërëjëf daal uh-huh. man sax waruma sif waye uh-huh. waaye la jik la sifé ndax ñaan li bu ko defee war naa mën a ne aduna ta ñak xulo mën ta ñak jaayante ta ñak uh-huh. mais bo démé ba tok

ndax miin ngeen ko suñuy kàddu mooy dañuy nuru ñaar tey kenn tey bu daal jëlee kàddu daan ne ñànku mi lépp lu mu jàppoon diggante moo ak ndaan bàyyi na ko sama jukko la jël mhm. tàng na bëri na xët-xët waaye du sama lii sama bopp la kuy moo wax naa bàyyi mu sell ñoo ko sa jikko laa ji jóomu sa jikko sama jikko bopp la la waroon def maa ko ah, ah, laa jël boo toon demal ah. gën di mbindéef sallallahu alayhi wa sallam moo ne ku dul mer bokkoo sama xeet waaye ku dul jéggalit bokkoo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

kii nag. Hmm. da di xale. aduna ah. du neex a neex a neex ba doo bàyyam. waaw ah, moo tax tontu mukk si yi ma may wax. aduna du neex a neex ba doo bàyyam. waaw ah. noonu nag war ngeen xam njànku mi kenn gënu leen xam kuy njànku lépp lu mu wax maa ñaan ngeen jéggal ko yéen ñëpp. waaw waaw min ko min naa ko si moom. kay baal leen ñoom say kilifa la ñu. sarax ma maa la ko ñu ay wax nga kay baal la kii kii kii gisal dóor bu ma dóoroon. dootu ko defati kay baal. tamal dóor. baax na ay saag nga ma daga teel. kii moomu dóor. waaw ah, ñaaw tey bi si jàmm la xaata nettal histoire histoire la indi. surtout. a da nga wax lekk mu génn benn yoon moo gën ma. waaw wala mbaata fekkee ko si man. saago bi ma saagoon dafa dàq sama biir bi bu ko jëmee wax ba nga wax da koy duuloo xaani ci biir xob la. léegi fayul lépp man mu jeex. waaw waaw ah, Fadou Koule daa bëgg nga xam ne. ya ma dàq dul ba ci tuur nga. yóbbu yi wa yo yo fi bi tan nak waaw yow yow si biir naa ba ca tuur nga. moo ko yow nag ñaar doo nga mu dul da nga ñëw fi mu dul la ko ñu kër ko nekk ma jox la dama rek bu expliqué eh, xaaral waay wa waaw kay ya wa be ma la ko dimbale ma li ma la ko ñaan xam la xante pour mu leer pour mu gën sama xol dama rek na ñëw ni rek na ñëw nii rek do dóor mu fi do ma fi eh. na ñëw rek ñu lek la ko dom du jor du dor bayam wa wa wala loolu la koy bañ maa la ko ñaan loolu man ma sëgg sax nga dóor ma ko moom a gënal. kii léeg mi daa doon dóor ba mu toll muy. waaw def yow bu ko def hmm. bi balance la. Hmm. ku nga mën jël naa sama poids ba pare. Hmm. moom daa war a raam. Eh. dem dem booy jël li jël mu mat mu libre mu baalante ak lépp jaar yoon. comme ñaar dóor la taxaw ma konk bay eh, eh, ko. jeex na jeex na kenn du konk sa bàyyi. ñi xeet gi ñoom ñun nii la mel ay nit day dugg kaso rek. ñu nga pataas ba léegi gisatoo ko fi lu leer na ma ni defeer nan ko ba yàgg bu koy nëbb naan naan pataas daa daa da daa dem voyager yëpp defeere nan ko hmm. ndaayaan tey mi ngi si kaso bi tey lii muy jëf bu ko bàyyi daa bëgg a dox sama diggante yow kenn du door sa baay dégg nga voilà man maa war a dóor maanaam ci xol ma yar ba ël bii daa rek fekk kii su ma gisee bëgguma doo doom yaa ma ko defal yow bokkoo ñi nga xam ne dañuy jóge dëkk ba bàyyi fa seen doom seen njaboot ñëw fii naa amuñ jawa am doom di fen naa amuñ jawa amuñ doom yaa dégg di topp xaalis diggante di ah, ñu ñu di lay mel lu ñu ñu jox leen ko yow bokkoo si ñoom yow da ngaa téye sa sa sa da ngaa téye sa jabar téye sa doom ci biir kër ga loo am bokkoo ak ñoom yow bokkoo bokkoo ak ñi ma xam loolu yëpp ngi dem kon hmm. ñoo ngi <laughs> ngi dem jërëjëf di mu wax wala baa mu ngi sëy rek ah macha allah ah, ñun ah, ko yàlla bu ca dugg ah muy de ko siiw siiw bi jëf daal mu ne ko yàlla bu ca dugg fi ñu toll kay ah. dañu sànnay ñaan rek alhamdulilah na defal yiw mi ngi daal sal gi sama sama gi la am sal gi na borom billahi bu satisfaction totale rek xanaa mm-hmm. nañ dem kii sa morom soo bëggee dama ci ñaan ko sa caleçon bi changé ko nag yàgg na si yow eh, bii yow nag réglé ko bàyyi ay bàyyi leen ay nit di dem ngeen wax ay ba pare ah. duul yaa ngi koy joxal dégg nga. ñaan ko demal demal demal demal ñaan eh, eh, ko man ñaan ko mais ñaan ko lu mel étudiant bi. tamit la ci xeer. kaay kaay kaay dugg kaay kaay. man man géré man dama andro pol lu malik ba taw rek xaar ñangu la motal lu lu juk sa diggante yow sa diggante ñangu étudiant la ak homme de tenue ñoy ñangu minimum la ci mu for xé sandi la waaw tew da ngay attaquer deug la yépp mën na ne waaye ñangu bu ma yebé yaa tax mu yab ma lu tax exemple bu ñaaw bo yel hmm. ci man ngay déparé dama mun hmm. résulté xam ne man ak yow ay noonu lañu bàyyil di jël di tiré ci man ay exemple yu terre à terre waaw yow bu may ànd ak yow man lan war a yedd lu tax ñu lay yedd. maman je suis marié. léegi. maa ngi ak ma kër maa ngi sama soxna. lu luye waaw ku sa kanam la màggee ba am na tey mu nga nee si këram yor jabaram. mariage forcé. yow la mool te am jabar. ña <laughs> nangu woo jël responsabilité du kuré. luy yàlla nee na lu jot yombu yow nag yaa buggul te dara yomb si wàllum jabar. bu bu yomb bu jotee nga xam la. bu ma duggee néeg bu bu déggul ay yuuxu man du ma nitu tus man. lu lay jëwee lu lay jëwee dinaa la ko wax. boo ma ko waxee ma ma koy wax ma. barke mum mo mo koy wax ma waxal waxal waxal yow xam nga man ak yow dom dama dama lay lem ba nga ro def la pointé du ko libéraliste eh dul te salam no xam ne boo bàyyee keur kër jàmbur ñëw booy fréquenté keur ñu yaakaar ni yow amu keur di jëm damul di nga xam man du kër du ma nitu fi man mu ngi ndaaye ya ne ay doomu xaram la yeah uh -huh. yeah na di ñoo di kenn de saveurs dans une même et seule bouteille fruits yi yëpp ñu jëmbatee ko Sénégal si anam yu sel te naturel buy bi de day parce qu'il y a yaram tayit yi leen sawarloo jus bissap ça Oh oh dina Yok sen kàttan boole si vitamine rek la ñi bëgg so naturel nak vito so exsident pour fête bu monti doon te baax lool si yaxu gune ak ma lepp nak nekk si emballage yu civilisé Tour. ak jus vito da am choix te ñu déféré ko fi ci Sénégal si anam yu naturel te sel disponible partout au Sénégal vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 vito jus le jus fait maison